jërë ngeen jëf mbokku téléspectateurs yi ñuy rafetlu seen ànd ak seen télévision 2STV euh, ñu am mbégte seen émission décryptage tey jii fas yéene waxtaanee li jëm ci wàllu yi euh, gis nañ fi opérateur yu bëree bari mi Orange ci la bokk Expresso ci la bokk Tigo ci la bokk kireen sax ñu ngi njort ne opérateur la am na ku laxas ci ginnaawam loolu di leen ko gëstu wante maamoon mbégte tey fas yéene waxtaan ak yéen ndax jàmbat gi bari na lool ci téléphone yi. rawatina lu bees li nga xam ne moo di licence 4G bi nga xam ne jur na réeroo ci diggante Sonatel ak euh, kuréel bii di ARTP ñoom ñëpp nag euh, amoon yaakaar ni ñëw toog ci plateau bi ngir leeral Sénégalais yi parce que koppar yuy génn ci li nga xam ne moo di wàllu téléphone bari nag bari goo xam ne est-ce que réew mi lim ci war a jariñoo mu ngi koy jariñoo dëgg-dëgg est-ce que entreprise yi ñu ngi jox xaalis bi ñu war a jox nguurug Sénégal ngir sénégalais yi mën ko jëfandikoo rawatina ñu nekk ci bitim réew ñoom dañuy joytu lu tarif bi chéré fii ci Sénégal lool ñu gis nag ne am na entreprise yu am doole yoo xam ne ñu ngi accaparé milliards yooyu muy jóge ci poosu sénégalais yi ma mbégte dalal fi tey jii euh, Ndiaga Guèye Ndiaga Guèye mi ngi nekk président association des utilisateurs des technologie et de la communication am yaakaar ne waa orange waa kii dañu dab ci biir waxtaan wi waa ARTP. Mhm. ndaxte loolu moo gën a rafet ñëw toog wax ak sénégalais yi. Mhm. <clears throat> laata loolu parce que tey jii dañuy def une émission interactive maanaam téléphone yi dañ ko affiché ngeen dugg direct woote ñu may leen ngeen dugg direct wax seen gis-gis ci li nga xam ne moom moo am fii ci réew mi ci téléphone yi est-ce que qualité bi baax na est-ce que réseau bi normal na. est-ce que amul parce que dama dégg ay journée de boycott yu baree bare yu ñu fi wax loolu yëpp bëgg naa Sénégalais yi joxe ci seen xalaat mu nekk une émission interactive boo xam ne ku nekk da ngay wax sa gis-gis ci mbir mi mais laata loolu am na Sénégalais yi benn doxantu bu defoon ci mbedd mi taataan leen micro bi ñu wax seen gis-gis su opérateurs yi fi nekk rawatina ki ci ëpp doole di orange ñu seetaan reportage boobu doog dellu si waat ci plateau bi. <laughs> Ndiaga yaa ngi dégg réaction yooyu sénégalais yow alors euh, d'abord yow nan nga gisee lii. waa lii de mooy baatu askan wi. Mm-hmm. askan wi wax na li mu wax moo di ne li ñuy dund ak opérateurs yi. muy mm-hmm. njuuj njaaj irrégularité tromperie loolu ñu dëkkee bés bu nekk loolu li muy wone mm-hmm. moo di développement bi ñuy wax ci télécommunication au Sénégal. dañ koy faral di wax di ko bàkkoo. di ko bàkkoo askan wi gisuñ ci seen bopp. Mhm. tey boo xoolee secteur bi ñaar ñoo gis njëriñ ci développement télécommunication ci dëkk bi mooy actionnaires yi ak état bi mais askan wi gis ci boppam développement boobu lan lay jëriñ. actionnaires yi nekk ci biir. opérateurs yi opérateurs yi. l'État qui encaisse des centaines de milliards en impôts et mais askan wi gis su boppam. Mm-hmm. objectif développement moom mooy améliorer condition de vie de populations. Mm-hmm. kon ba bu ñuy wax ne télécommunication développé na Sénégal te askan bi am ay jafe-jafe pour di ko si jot si pris bu yomb si bu baaxee ça veut dire que donc lii ñu nekkee du lu baax donc war nañ ko saytu pour defaraat ko jubbanti ko. Mm-hmm. d'ailleurs euh, mën nañ afficher numéro yi ah, yi nga xam ne moom la sénégalais mën a dugg ci biir euh, te euh, émission bi woo woote ci mën a wax seen xalaat mm-hmm. extérieur comme fii mm-hmm. parce que waa extérieur dañuy jàmbat prix bu seer man jot naa ci ay message yu bëree bëri ba ñu lancé débat bi mais ñu ñëw ci d'abord coow li xew jamono yi mm-hmm. mooy licence 4G bi licence 4G bi d'abord lan la waaw licence 4G technologie bu bees la. Mhm. bu lay permettre nga def internet très haut débit. léegi coow li juddu nag si diggante opérateurs yi ak kilifa gi yore télécommunication mooy ARTP yi. Mhm. képp kuy gëstu si biir secteur bi lii waru la bett. lu tax lu tax moo di ne comme ni ko askan bi waxee ay njuuj laaj li ñuy ay trop boo koy wax ci naka. mooy manquement yi askan wi dénoncé léegi. réseau bu bon. réseau bu bon tarif yu cher te code de télécommunications de 2011 bi ñu voté jox ay jumtukaay ARTP pour mu jubbanti loolu yëpp ARTP lànk ne du ko def. code bi lan la wax ARTP. si tarification. waa si tarification. tarification mooy njëg gi. njëg gi voilà. boo jëlee article 58 bu code de 2011. dafa xaaral ma wax ko si tubaab après tekki ko si wolof. daf ne les opérateurs sont libres de fixer leurs tarifs. toutefois fois régulateur peut encadrer les tarifs d'un opérateur puissant loolu la wax si partie tarification mooy que ne opérateurs yi mun nañ fixer prix bu leen neex. waaye nguur gi muy ARTP opérateur bu si am doole day ñàkk say tarif di ko sàmm mënatoo def lu la neex. Mm-hmm. code bi daan ne. opérateur boo xam ne si part de marché yi am na si plus de vingt cinq pour cent amatoo liberté fixer sa prix nu la neexee dañ lay considérer comme un opérateur puissant boobaa loolu ARTP dafa war a sukkandiku woon article quinze du code buy wax ne yow maintenant damay sàmm say tarif da war a def comptabilité analytique da nga war a ay tarif yoo xam ne warta soriwoo ak sa coût mm-hmm. mais mosoo dégg ARTP jumtuwaayoo article yooyu pour ne lii opérateurs yi nekkee jaaduwul dafa jaaduwul dafa war a deñ muy benn. mais téléphone cher na quand même. dinaa si ñu naal jox ay exemple ñaareel ba dañ fi indi ay opérateurs yu bëri pour ñu jongante seen biir ngir tarif wàcc opérateurs yi amul benn jongante bu ñu def seen biir ñoo tolloo tarif si lépp mooy téléphone muy internet te loolu yoon yoon da ko bañ code de 2011. donc ARTP waroon na sukkandikoo. la maanaam Orange Tigo Expresso. ñoo tolloo ñoo tolloo tarif boo xoolee tarif yi ñuy transmettre ARTP ñoo tolloo tarif ba tax ne ARTP dafa waroon sukkandikoo l' article 62 pour ñàkk seen i tarif di leen sàmm parce que loolu la code bi wax ne bu fekkee ñoom jongante wuñu. bañ di jongante dañuy def entente illicite si si si seen biir ARTP dafa war a jël dogal ne léegi man ak maay sàmm seen i tarif ngir askan lii ñuy def askan wi. di déggante seen biir pour tolloo tarif mhm. en France en 2005 mhm. bi ko buy gi defee SFR ak Orange nguur ko def leen daan daan yu métti ne yéen a ngi lor askan wi parce déggoo pour gën a sonal askan wi très bien fii nag Sénégal ARTP daa bañ ne du ko def ne du ko def alors am na ku nekk ci li ñu jël ko allo allo waaleykum salaam waaw waaw ñu ngi lay ziar ñu ngi lay ziar yow it. jërëjëf. Mhm. waaw wax dëgg yàlla moom woote bi na lool lool mhm. ah nekk yëpp ñu koy daal ñu koy wax wax dëgg yàlla. waaw man jot naa ci ay xibaar yu mel noonu yu bëree bari sax. très bien. jër jërëjëf ñu waa Côte d'Ivoire yëpp yaa ngi dégg kooku. waaw jàmbat li moom benn la. jërëjëf. jàmbat li benn la ñu nekk si bitim réew ak ñu nekk fii Sénégal moo am tarif de communication les plus élevés de la sous-région. est-ce que def ngeen ay études comparatives. maa ngi siy ñëw boo xoolee site web des opérateurs qui sont dans la sous-région Côte d'Ivoire seen tarif à la seconde est un franc cinquante ñun ñu ngi si un franc quatre-vingt-dix-neuf. un franc cinquante. ñu ngi si un franc quatre vingt dix boo demee Niger Cameroun ñu ngi si un franc ñu ngi si un franc quatre vingt boo demee Togo ak Bénin ñu ngi un franc la ñu ngi si un franc quatre la seconde nga dem Maroc ñu ngi si zéro virgule huit la seconde mieux encore boo demee si dëkk yooyu Maroc wala Tunisie pour douze mille francs CFA cent quatre-vingt-dix-neuf dirham mm-hmm. tu as des appels illimités vers tout réseau SMS illimité connexion internet 3 gigaoctets 3 12 000 francs CFA nga dem Tunisie dix heures d' appel un gigaoctet d' internet sept mille francs CFA Sénégal pour am deux heures d' appel illimité tout réseau il faut dépenser dix mille francs CFA loolu pour lan. c' li nga wax noonu ah li nga wax noonu c' est c' est très important allo allo. waaw sëñ bi. waaw ñu ngi lay dégg. Mhm. da ngay bàyyi télé bi nga jël tel waaw. Côte d'Ivoire waaw <laughs> waaw Côte d'Ivoire songu nañu. Hmm. allo. dafa cher. waaw baax na. jërëjëf li ngay wax noonu ci nekk. donc tarif yi dafa jéggi dayoo ci Sénégal. mais loolu kan moo war a kan moo war a encadrer loolu réguler ko ba mu normal. mooy mooy dama doon wax léegi dama ne. bu fekkee opérateur bi amul doole. bu fekkee hmm. opérateur moins de vingt cinq pour cent de part de marché la am lu ko neex mu def. mais opérateur bu amee plus de vingt cinq pour cent de part de marché amatul liberté def lu ko neex ARTP dafa war a ñàkk ay tarifam di ko sàmm ñëpp xam ne Orange moo ëpp doole fii yëpp lu tax ARTP du sàmm ay tarifam ne ko mënatoo def lu la neex da nga war a def comptabilité analytique ñu xam yow lan mooy say coût comme ça ñu fixer tarif boo xam ne du sori say coût bër ki dem lu Orange yokk ay tarifam yokk yokk le 28 août 2015 à deux jours du lancement de la portabilité te ARTP amoon na ay jumtukaay pour bañ ko te ARTP bañu ko. yokk ça veut yokk coût téléphone bi. tarif ay euh, Sonatel. Mm-hmm. avant 28 août 2015. 1 mm-hmm. franc 90 la woon la seconde. léegi ñu ko 1 franc 99. bu ko xeeb parce que des milliards et des milliards de secondes. donc Orange yokk tarifam yow jaadu na une société un groupe. qui a réalisé en 2013 un bénéfice net consolidé de 189 milliards de francs CFA. Part de marché du Sénégal, 58%. C'est-à-dire qu'au Sénégal, uniquement, Orange a un bénéfice de 109 milliards en 2013. 2014, Orange Groupe Birmingham a un bénéfice net consolidé de 218 milliards. Part de marché du Sénégal, 56%. Mouille 122 milliards. Le Orange réalisé au Sénégal. de bénéfice net à distribuer aux actionnaires banque bi ëpp doole Sénégal muy CBAO hmm. plus de dix milliards la bénéfice te alal jooju lay jóge si poosu askan wi hmm. donc kooku ARTP moo doon taxaw ne doy na dañu war a ñàkk say tarif sàmm ko ngir askan bi gis si boppam donc ARTP askan wi la fi nekkal wala kan la fi nekkal loolu mooy wax ci Ah, en tout cas, ils ont train de vie euh, <laughs> très tabarakalla, machallah. Au niveau alors sur licence 4G bi, on peut on peut afficher parce que je pense que aujourd'hui il faut que ñu joxe l'opportunité mhm. aux Sénégalais de mhm. de de, de réagir, c'est mhm. important. Ñu afficher numéro yi pour euh, Sénégalais yi mën a intervenir, mën a wax seen gis-gis, c'est important. Alors euh, ci li nga xam ne moo di euh, licence quatre g bi. waaw li ma doon wax léegi si licence 4G ne li li dal autorité yi mooy ñàkk a wormaal bi leen opérateur ñàkk a wormal bi ñu defee appel d'offre bi ñun ñu wuñu ko. opérateur man sama dafa am une entente illicite. mooy manque d'élégance bi ñu def envers les autorités. je prends quelqu'un et après ñu ñëw ci loolu allo. allo allo. voilà en Je vous appelle depuis Paris. Depuis Paris, oui. Donc, je suis en train, ouais, je suis en train de regarder l'émission. En fait, euh, j'ai compris, on parlait de moi, parce que moi, ça fait des années, mais euh, Parce que pour appeler au Sénégal seulement à partir d'ici, là, bon, le en fait, le minimum, c'est 3 000 en fait, je fais minimum 300. 300 000 CFA par ah, loolu de métti na euh, franchement c'est trop dur quoi. alors très bien. c'est très dur c'est absolument je pense que le mal oui. est partagé par beaucoup de Sénégalais vivant à l'étranger merci beaucoup hein. et bien des choses à tous les Sénégalais yi nekk Paris alors yaa ngi ñëwoon ci licence 4G bi euh, l'État dafa accuser ne Expresso Tigo Orange dana def benn entente. explicite pour ne pas souscrire ci appel d'offre bi loolu la wax. waaw loolu dëgg la loolu la ñu def. xaw ma ñoom ñoo bokk ndoor benn lettre ARTP ne prix bi dafa cher après ñoom ñëpp ñu bañ a loolu rafetul. mooy waruma lu ñu. mais loolu état bi est-ce que warut jël fulla ak fayda jël ay responsabilités. moom laa la wax li ñu def. parce que ay entreprise rek lañ fi. loolu laa la wax dama ne li ñu def. Ah. ku nekk ci secteur bi warul la bett parce que dañ fi nekk di noot askan état bi moo si si jóg ARTP moo si si jóg. moo tax li bees tey mooy yi am fit ñàkk a wormaal suñu autorité yi te loolu ñu koy ñaawlu parce que quand même autorité yi ñoo leen fal donc leen ñàkk a wormaal def ñu war a métti mais nag ñoom aussi ñoo ko def parce que ARTP bu doxaloon doxalum kilifa mooy ko opérateur yi jalgati bu tegaat leen si yoon tey lii du am. loolu ARTP mosu koo def. Ah, donc ça veut que waaw li ñuy wax de wolof de am na lu ñuy lébu ñu ne bukki bu yebee waxamaane si doxin. mën loolu mooy benn explication. benn explication li indi flop waaw dëgg ma jël kii ñu allo allo. allo. salaam. waaw man la Pape Alé. waaw wax dëgg waaw. waaw dañ ko wax ci wolof rek. waaw waaw waaw. waaw bu weesoo mhm. euh, mhm. affaire euh, ah. waaw bien loolu dinañ ci gëstu bu baax a baax merci beaucoup Mansour alors. waaw kan nga ñàkk waaw. benn explication bi mooy li ARTP doxalul doxalul kilifa envers les opérateurs ba ñooñu ñeme ko deuxième explication bi. Mhm. ba xam ne moo indi flop bi moo di ne suñu autorités yi dañu tàmmal opérateurs yi di leen jox licence si njëg yomb. baal ma jox la ñetti exemple si ñetti opérateurs yi ñu commencé ko par Expresso en 2007 ñu ngi wax officiellement que Expresso mi ngi fay 100 milliards pour am licence am globale. Expresso waaw ba ñu fa jógee lu nguur gi def. Mhm. may Expresso ay bor de de de fisc fiscalité baal leen benn bor li mu leen may si fiscalité exonération fiscale mot na 300 millions de dollars 140 milliards de francs CFA. de 2009 à 2012 kon li ñu dugal jëlaat nañ ko. jaajëf wax nga wax jëpp donc lañ joxe woon de la main droite. nanguwaat nañ ko par la main gauche te loolu nguur gi fi nekkoon moo ko def. ñu dem si Orange en 2011 licence 3GM bi nga xam ne mi ngi si def ay milliards état bi mi ngi ko jaayee 3,5 milliards 3,5 milliards la ko état bi jaayee. loolu du dara boobu. Mhm. dëkk yoo xam ne seen marché de télécommunication moo gën a tuuti suñu bos comme beneen. mi ngi jaayee licence am bu nekk cinquante milliards. donc benn mi ngi jaayee trois virgule cinq milliards lañ ko jaayee orange. 3 virgule 3 G mais moo tax kay ñoom ñu mën a tey jii ne duñ jëndee 4 G laa la wax autorité ñoo leen tàmmal loolu ñoo leen tàmmal lu yomb li mhm. ñu dem si Tigo Tigo nguur gi fi nekkoon daf ko attaqué woon attaqué woon fële waaw daan ne ko balay socialiste yi di jox euh, sa licence 98 la nga joxe du woon dara donc da ngay fay. Mhm. démarche boobu bonul démarche bu baax la parce que boo xoolee yeneen dëkk yu ñu wër comme Côte d'Ivoire Bénin Centrafrique ñoom aussi ñu ngi woon seen licence en 96 te opérateurs yi boobu fay woon euh, xaalis bu bëri mais bi ñu seen ne mbir maa ngi dox opérateur yi ay milliards de bénéfices ñoo gis dañoo fëgg si table ji daan ne dangeen da ngeen di fay. Mhm. te foofu opérateurs yi fay na muy Côte d'Ivoire muy Bénin muy Nigéria. yooyu yëpp opérative moo tax nguur gi fi nekkoon Tigo la attaqué lu tax attaqué wul Orange mais Tigo la ñu attaqué Tigo mu ñàkk doole donc mu am jafe-jafe entre Tigo ak nguur gi fi nekkoon Tigo sax bañul woon fay mais li nguur gi fi nekkoon demandé woon moo bëri woon parce que nguur gi dafa nekkoon ne Tigo fay cent milliards Tigo ne leen nag man du ma fay cent milliards parce que man licence bi ma yore du licence globale licence bi ma yore pour téléphonie mobile dong la la nekk ma fay comme ku yore licence globale mhm. mun ma fay lu weesu cinquante milliards nguur gi nag bañ ne il faut ñu fay cent milliards donc nguur gu bees gi bi ñu ñëwee jafe-jafe yooyu lañ fekk entre Tigo ak nguurug Sénégal ah nguur gu bees gi ñëw daan ne ah ñun de waxtaan ba juboo moo ñu gënal ñu dem tribunal règlement ah, l'amiable ñu waxtaan ak waa Tigo mhm. ba finalement Tigo fay cinquante trois mais nguur gu bees gi xamul lu mu def. Mhm. licence yu Tigo mi ngi waroon jeex deux mille dix huit ñu yokk ko ba mille vingt huit. ñu fay cinquante ñu yokk leen ba deux mille vingt huit. yemuñ foofu. Mhm. Tigo téléphonie mobile dong la waroon def dem jox ko licence globale. à cinquante trois à cinquante trois ah. donc foofu encore c'est des donc foofu encore trésor public. perte na fa lu mot cent milliards. 100 milliards si si si si Tigo 50 milliards si Sonatel presque 140 milliards si si sur Expresso ça fait 300 milliards que le trésor public a perdu entre 2000 2007 et 2012 en 5 ans. ma jël euh, loolu jaadu na si dëkk boo xam ne. da doon dool ma ngoog. <laughs> allo allo allo ni ngi delloo ziar bu baax. alhamdulilah.

d'accord même boo amee ci sa téléphone pour nga merci beaucoup jërëjëf ñu ngi buy poser problème euh, merci beaucoup jërëjëf euh, ci roaming bi la doon wax moom. moom mais ñu ci loolu c'est important Diaga li nga wax noonu nga ne kon les trois opérateurs on fait perdre à limite trois cent quarante deux milliards. mais au trésor public loolu la ñu tàmm expresso deux mille dix-huit la waroon jeexal ñu yóbbu ko mille vingt-huit jox ko jox ko licence globale merci pour cinquante-trois milliards pour cinquante-trois milliards moom la nguur gu bees gi def nguur ga fi jóge jaay Sonatel licence 3G à 3,5 milliards. 3,5 milliards jox ay exonération fiscale expresso ba la mu fayoon pour 100 milliards yi mu jotaat si. est-ce que yow d'accord nga ñu jaaye jaayee licence 4G bi ci 30 milliards. xaaral ma jox la les faits. jox ma les faits comme ça ku nekk mën a apprécier. bu ñu jëlee exemple Orange nee naa la léegi en 2014 Orange a fait un bénéfice net consolidé de 218 milliards la part du Sénégal part de marché c'est 56 pour cent donc Orange a fait 122 milliards Orange sax ragal naa lu ñu ci ci milliards day génn lu bëree bëri de. bu leer France bu leer France Télécom les devises. les, les, les c'est exporté, mm impact très négatif sur notre balance des paiements et sur nos réserves en devises. Mais donc Orange mi ngi def bénéfice net au Sénégal de 122 milliards en 2014. 2014 2013 bénéfice consolidé 189 milliards part de marché du Sénégal 58 pour cent 109 milliards si tu fais la Orange fait 115 milliards de bénéfice. au Sénégal par année. par année. ñu ne lañ lay jox licence 4G sur 30 ans euh, sur 20 ans du moins. Hmm. pour 30 milliards. boo xoolee mooy at mu nekk 1,5 milliard nga war a fay. yow ngay gagné 115 milliards par at ñu ne la fayal 1,5 milliard nga ne yaa lànk doo ko def. mais dellu si waatal expliquatal ça c'est important ah expliqué waatal si waatal ci loolu. Hmm. bénéfice en moyenne. Hmm. de Orange bénéfice net laa wax. boo xam ne ah, at at mu nekk at mu ne cent quinze milliards la nguur gi dama lay jaayi licence quatre g mm-hmm. à trente milliards sur vingt ans boo ko xoolee at mu nekk un virgule cinq milliards nga war a fay Orange ne loolu dafa cher maa lànk du ko fay joxe exemple nag Maroc boo bëggee aussi ñu wax si waxi Maroc ayca moom Maroc la joxe exemple Maroc la wax te lan la Orange wax Orange daf ne si communiqué bi mu envoyé que Maroc ñu ngi jaayee licence yi trente milliards te boo xoolee population Maroc ak richesse su Maroc moo ëpp doole bu Sénégal donc dañuy diviser prix licence bi par deux au lieu de trente milliards ça doit faire quatorze virgule cinq milliards loolu la Orange wax. mais préciser rek à l'intention des téléspectateurs ne Orange ñoo gàntal ah, ñoom ne ñoom invité woon nañ leen ñoom ñoo gantal ñoom ñoo gàntal parce que peut-être que. waaw peut-être débat bi lañ doon. bañ bañ. Mhm. wala di ko ne li ñor sénégalais yi ak li nga xam ne dafa jëm ci jëmale réew mi kanam man dinañ ko teg ci taable bi waxtaan jërëjëf voilà loolu moo am solo jërëjëf donc Orange daf ne moom licence bi jaralu ko lu ëpp quatorze virgule cinq milliards joxe exemple Maroc benn remarque bi may njëkk def ci argument Orange yi moo di ne Maroc licencié jaay wuñ ko trente milliards comme ni Orange waxee ñaata lañ ko fa jaayee. opérateur bu fa ëpp doole. Mhm. muy Maroc Télécom mi ngi jëndee licence am à quatre-vingts milliards. beneen yeneen ñaari opérateurs xam ne ñooy opérateurs yu ndaw yi muy Vana ak Méditel Méditel xam ne filiale Orange la au Maroc ñu ngi jëndee quarante-huit milliards. après nañu expliquer lu tax kii fay soixante-dix-huit ak kii fay quarante-huit milliards loolu la licence yi jar au Maroc trente milliards yi euh, orange di wax si Maroc c'était prix de réserve bi prix de réserve mooy prix bi gën a néew boo xam ne laaj naa ko si lii loolu aussi la ARTP def mhm. daan ne bi gën a néew si licence 4G yi au Sénégal 30 milliards laa si laaj mais prix bi du mën na ëpp 30 milliards comme Maroc hmm. donc ñoom li ñu jël comme argument mooy le marché marocain daan ne way population marocaine moo gën a rëy or booy xool li gën a pertinent mooy le parc d'abonnés hmm. de téléphone de de de de d'internet mobile Maroc 9 millions la Sénégal 7 millions 300 ma yokk si dolli leneen mais les marges bénéficiaires. ñi ngay am Sénégal li nga am ko xalaatoo ko xalaatoo ko Maroc. bàyyil ma confirmer la loolu bàyyil ma la confirmer bala bàyyil ma confirmer la loolu. Mhm. bañ lañ leen di jaay les licences 4 au Maroc les opérateurs de téléphonie faisaient des pertes Maroc Télécom dafa def ay perte ba nga xam ne. opérateur euh, l'actionnaire majoritaire ba fa nekkoon Vivendi dafa jaay action dem yoonam Minitel 2015 bii la commencé def ay bénéfices ñoom bañ leen di jaay licence dañ doon def ay pertes. Mm-hmm. kii nag muy def bénéfice 115 milliards en moyenne au Sénégal donc ban marché moo gën a baax marché Maroc wala marché Sénégal. marché Sénégal moo gën a baax. donc ñoom li ñu nekk mooy néewal as euh, euh, alalu Sénégal pour maximiser seen bénéfice ils sont dans leur rôle. wax ji kay suñu autorité yi la ñuy def pour saafara waaw. ma jël kii allo waaw. allo. oui. waaw ñu ngi lay déglu sëñ bi. waaw ngeen baal ma ak bon je vais être bref. Mhm. Maroc forage euh, euh, n'a rien fait c'est l'état l'état yi moo ci am lu bari. Mhm. même tuddee avion aussi la même chose foo dem dañ naan état bi la donc nañ wax ak bi. Orange day liggéey donc nañu fii dëkk nañu liggéey. na mm-hmm. Sénégal liggéey liggéey ñu li ñu leen jox rek ñu nangu. Mm-hmm. voilà donc moo tax ñu ci profité. ils ont raison Orange a raison te ci profité. entreprise la euh, entreprise la euh, day wut xaalis. entreprise day wut profit. donc euh, mais c'est en face que l'État doit être fort. absolument mais c'est l'État c'est l'État doit être fort pour dire que. l'État moo ñu jiite donc bu bénéfice bare ñoom dañ ci am donc Orange n'a rien fait nañu wax ak état bi. très bien même biir avion yi mhm. merci baal nañ jërëjëf li ngay wax rek mu dellu si waat ci rôle bi ARTP war a jouer normalement pour réguler la marché. waaw bii yoon si licence 4 yi moom. Mhm. Euh, boo ko comparé la doon am démb ARTP def na lu tane. dana lu tane parce que au moins ça a wax na ne. non su ma nee transparence mooy ça a été public. waaw il a dit que 30 milliards la ñuy laaj. prix minimum prix minimum pour 4G. bii moom. waaw jéem nañu def nañu effort. Mhm. li ñu bëgg nag mooy jàppale leen surtout pour que effort yi gën a continuer pour que alalu askan wi bu ñu ko saax saaxee parce que opérateur yi loolu lañ bëgg parce que loolu lañ tàmm si dëkk bi mooy jël alalu askan wi di si jëriñoo te askan wi du si jëriñoo donc ARTP commencé na nañ ko si jàppale léegi ARTP nee na. day dem si le marché international pour jaay licence 4G yi. ku bëgg mu jënd. ku bëgg mu jënd. mais est-ce que euh, euh, France euh, de Orange deful noonu euh, parce que xam ne nag convention bi 2017 day jeex. loolu dëgg la convention bi ki lié Sénégal. Uh-huh. Uh-huh. état Sénégal ak uh-huh. waa dañ ko war a renouveler. loolu dëgg la am na ay clause yu nekk ci biir yoo xam ne état bi war na ko xoolaat. loolu dëgg est-ce que du loolu la laxas ci biir moo tax muy def surenchère. waaw léegi baal ma tontu si réponse su ARTP par rapport. Ouais. Euh, par rapport ak opérateur yi ñu def après ma ñëw si renouvellement licence de convention convention de d' orange bi donc ARTP réaction bi mu am réaction bu baax la parce que kat ce sont les opérateurs qui sont demandeurs leur survie dépend de la 4G la 3G parce que euh, la téléphonie mobile la voix est saturée maintenant les niches de croissance se trouvent dans les données parce que Sénégal yi ñuy gën a dem de plus en plus vers l'internet mm exemple bi mooy que même pour téléphoner léegi sax il préfère utiliser Viber WhatsApp. WhatsApp. donc donc parce que donc voilà donc voilà donc opérateur téléphone leur niche de croissance c'est dans les données mais pas mhm. dans la téléphonie mobile donc les opérateurs sont en position de demandeur de la 4G. donc ARTP lii mu amee réaction baax na. na am fulla ak fayda taxaw ne fayda ne mi ngi dem si marché international. ku bëgg ku bëgg mu jaay mais ce qu'il faut savoir mooy que ne ARTP bu ne day dem si marché international bi pour jaay licence 4G c'est en fait ARTP licence globale lay jaay. Mm-hmm. parce que licence 4G boo nee dama koy dem jaay sur le marché international kenn du ko jënd loolu moo tax pour wax ne am na ñu doon wax naa. ARTP dafa juum lu tax mu def un appel d'offre fermé aux trois opérateurs loolu ARTP li mu def noonu la. mooy licence 4G bi la leen doon jaay ñoom. noonu la parce que boo demee di jaay licence 4 xam nga de marché la. Mhm, segment de marché bien sûr kenn du ko jënd Tunisie. le premier lañ defoon lañ def seen dépouillement appel d'offre licence 4 ñoom dañ defoon un appel d'offre aussi à l'international personne n'a répondu sur l'international Seuls les trois opérateurs au, en Tunisie ñoo répondre seen dépouillement le 1er février donc pour dire que ARTP ni mu defee appel d'offre bi noonu baax na. mais Orange ñoom dañoo tàpp ne dañ leen singale parce que du ñoom rek ñoom ñoo nekk ci mbir yaa Expresso yaa Tigo lu tax ñu singale leen ci mbir mi mën na leen mais yéen a fépp doole. non du loolu sax. ñeneen ñi ñeneen ñi séddee non wax ñu loolu c'est que ñoom sax ñoo ñoo ñoo def communiqué. waaw tontu tontu indi ay argument si argument yooyu lañ leen di tontu. ñu ne ñoom ñoo ñu waaf tëdd ne duñu duñu wax duñu xool ak kenn. Mhm. donc kenn singali wu leen. kenn singali alors kenn singali wu leen renouvellement convention. léegi c'est en 2017. waaw léegi pour man foofu état bi war na jël ay responsabilités am toog xoolaat nag. bu leer quel type de rapport lañ war a am. Ah. pour que xaalis bi nga xam ne mi ngi génn ci wàllu téléphonie bi ñu mën cee am alal ju bare bari mën na financer PSE mën na financer PUDC yu bare bari. waa loolu nga wax dëgg la mais li waroon mooy bala ñuy licence ah, def licence 4G renouvellement licence orange mooy def évaluation caytu ñun li ñuy dund depuis vingt ans ak téléphonie mobile fu mu ñu jëmee ak lan la faire des réformes en profondeur mm-hmm. mooy définir une stratégie nationale de développement des TIC loo xam ne amul Sénégal nguur gi xamuñ fu ñu jëmee dans le développement des TIC nguur gi fi jógee au moins quelles que soient les limites et les jéem na de après cinq ans d'errement et de tâtonnement parce que bi ñu egg ils ont tellement parlé d'éthique que volet NEPAD boutique dañu ñu ko jox. Mm-hmm. alors que il a pour ñu mettre en place leur première politique sectorielle de développement def deuxième depuis nag dara amu fi ñu xëy xëy di dem rek tey fii tey fii ça va dans tous les sens donc jot na ñu toog xool ñun fan la ñu jëmee. fan la ñu jëmee aucune politique de développement des TIC depuis 2012 dans ce pays. Aucune lettre sectorielle. léegi tudd nga fi PSE quelle est la place des TIC dans le PSE boo xoolee document bi 136 pages le PSE boo si yokkee annexe bi mu nekk 167 pages dans les 167 pages du PSE on y parle des TIC que sur une seule page. Mm-hmm. boo xoolee les vingt sept projets prioritaires du PSE aucun ne concerne les kon d' abord balaa kon balaa ñuy def li nga xam ne moo di renouvellement convention bi waaye ma ma yeggale dinaa ñëw si renouvellement mhm. boo xoolee le PAP du du du du du du PSE le plan d' action prioritaire dans le scénario optimiste ils ont besoin de cinq milliards pour financer le Dans ces 9 685 milliards, seuls 60 milliards sont consacrés au TIC. Il faut avoir une vision politique dans ce pays. Seuls 60 milliards sont consacrés au TIC. C'est pour faire quoi Le parc technologique de Diamniadio et des cybervillages. Voilà la vision de ce gouvernement pour le développement des TIC dans ce pays. Alors, nous avons une convention. La convention, discipline, un an avant la fin de la concession, Orange doit avoir bind pour def demande de renouvellement de la concession. mi ngi war a 2016 bi war Orange war na bind. absolument parce que concession mi ngi def juillet 2017 donc au plus tard juillet 2016 Orange war na bind. te c'est l'occasion de faire une refonte en profondeur du secteur des télécoms avant ñu renouveler ñu ñuy renouveler. Euh, convention convention parce que wax ji leer na askan wi gisuñu seen bopp ci développement des des télécommunications dans ce pays. te nguur gi aussi il faut mu xam valeur convention de euh, licence bi mu war a jox bi mu war a renouveler pour Orange ma jox la exemple wax naa la léegi ne la Orange en moyenne. bénéfice net voilà cent quinze milliards au Sénégal rapporte ça sur vingt ans ça fait deux mille trois cent milliards au bas monde de bénéfice net. te te genn te te tuutee fi des des lu ci ëpp day dem. pour firnde la loolu. de 2009 à 2014, France Télécom a reçu en dividende du groupe Orange 663 milliards de francs CFA en 5 ans, 5 exercices. Et l'essentiel. 663 milliards. Le France Télécom recevoir en dividende ah, du, groupe. Du groupe Orange a reçu en dividende en 5 exercices, 2009-2014. Exporté avec un incident extrêmement négatif sur notre balance des paiements. et sur nos, sur nos réserves en devises. 693 milliards. donc bu fekkee un actionnaire moo mën a am 663 milliards en 5 ans en 5 exercices ñun ñi moom ressource bi ñaata lañ ko war a jaayee sur 20 ans. loolu mooy wax ji. dëgg la ressource boo xam ne daf lay jox un bénéfice potentiel. si on se place dans un scénario optimiste d'au minimum 2300 milliards sur 20 ans. ressource boobu boo ko amee ñaata nga koy jaayee. war nga ko jaayee lu seer. mën nga ko wax jël kii noonu. am na kuy allo. allo oui. oui. oui euh, participer au Orange là. allez-y vous écoute. en fait euh, il faudrait juste que le Sénégal et que le gouvernement sénégalais tâche à dire à Orange que euh, Orange n'est qu'un opérateur comme tous les autres Il doit se fonder aux lois qui sont au Sénégal. C'est le Sénégal de décider qu'est-ce qu'il faut payer pour qu'un opérateur fonctionne. Il a pas à se voir le Maroc. Maroc, c'est Maroc. Sénégal, c'est le Sénégal. Ils sont d'accord de faire ce que les Sénégalais ils veulent. Ils restent, ils ne veulent pas. Ils, ils n'ont qu'à Allez, Excusez-moi de souci. <laughs> Vous êtes tout excusé. Alors, euh, bon, écoutez, ñoom ñoo fi nekk ñoom lañ bëgg a jaay licence 4 bi lii laay jaayee am naa ci droit. bu leer. lii laay jaayee. boo bëggee nga jënd boo bëggul ma xool ni may def. c'est que wax ji. mais convention bi nga ne ñoom en vingt ans mën nañ ci am deux milliards milliards. ma ne Orange mi ngi def cent quinze milliards de bénéfice par an en moyenne. par on se place dans une hypothèse optimiste. sur vingt ans de bénéfice par an par an sur vingt ans ça fait deux mille trois cent milliards même dans une hypothèse où ces bénéfices caracoles on se fera sur ans au minimum mille milliards rien que sur le Sénégal je parle je parle pas du groupe je parle que du Sénégal ressource boobu boo ko amee yow nga ko war a jaayee non loolu non loolu loolu damay wax sax euh, monsieur le président de la République ñëpp loolu dafa laaj conseil interministériel ñu toog ñu ne convention bii buñ balaa ñu koy renouveler ñun lii lañ ci soxla ci koppar. loolu moo war moo tax ma ne il faut ñu toog waxtaan def. conseil interministériel la wax ma conseil il faut que tous les acteurs waaw waaw waaw toog ne ça c'est du sérieux parce que man damaa soxla xaalis pour financer sama PSE damaa soxla pour kii balaa may renouveler convention bi nga xam ne mi ngi may indil deux mille et poussière milliards. ci Sénégal rek ci Sénégal rek. daanaka dinaa xoolaat bu baax a baax këyit du lu ma jox rek ma bind ma signé donc kii nguur gi dafa ko war a caytu. bu baax c'est xaalis bu bari la loolu. ay ressources la yoo xam ne elles sont énormes mm-hmm. et que donc comme ñun suñu gouvernement bi tout le temps ñi ngi soxla xaalis di lebi fu nekk di ñaan xaalis fu nekk bëgg nag di saax saaxee sa alal. Mm-hmm. loolu kenn mënu ko nangu. dama déggoon benn jour benn communiqué bu ARTP génne woon ne dañoo bëgg a tëj. Skype yeeg Viber yeeg WhatsApp ngeen def ci benn réaction bu métti parce que opérateur bi moo ne <laughs> dañuy perte lu bari. waaw génnaat nañu si ARTP génnaat na si après génnaat na si après. mais loolu yëpp. mais am na benn am na benn journée ou deux jours boo xam ne bloqué woon nañ Viber. waaw loolu am na am na loolu opérateur bu mag bi moo ko fi. defoon moo ko defoon bloqué woon nañu mais loolu wax yëpp li muy wane rek ne mooy que suñu autorités yi ñoo war a taxaw. si les opérateurs. mais ñoom fan lañ tegoon loolu. parce que neen dañuy perte. ñoom ñooy perte. ñoom opérateur yi waaw. foofu dong lañ ko wékk de léegi ñu xool li neex si askan wi lu baax si askan wi ñoom ñoom aussi li ñuy def kenn mënu leen si contre. toute société privée oui voilà li ngay ut mooy. maximiser mais da ngay mais da ngay gis da ngay def lu raisonnable aussi. mais société payem seen logique mooy maximiser tes revenus minimiser tes coûts si logique boobu la Orange nekk si la Tigo nekk si la Expresso nekk. suñu autorité kay ñoo war taxaw fi nag ni ñun askan wi lañ fi nekkal donc lii ngeen di def du fi jaar duñ ko duñ ko nangu du fi am loolu mooy wax ji. Mm-hmm. ñii kenn mu leen condamné si dara. Mm-hmm. léegi comme ñoom licence 4G bi bañ nañu ko ARTP na dem sur le marché international jaay licence globale bu inclure. 4G parce que 4 rek boo demee di ko jaay kenn du ko jënd. te bala ngay jaay 4G il faut nga préparer les conditions pour que opérateur boobu bu ñëwee mën a liggéey. parce que naa la xamal dara. mais mais gis naa mais ni ni ni opérateur bu mag bi sampé ay reenam. ma ngoog ma ngoog fii jafe keneen ñëw fi man a. parce que dégg naa sax ay expresso tigo yi moo leen may benn autoroute bu ñu jaar. ma ne si moom lañ dépendre. ci moom lañ dépendre. pour firndeel la loolu. donc ça veut dire que ce n'est même pas une concurrence normale ah. mooy li am pour firndeel la loolu réseau fixe bi. Mhm. Orange Sonatel a monopole total téléphone fixe. kenn rek moo la ko mën a jox Sénégal orange internet fixe ADSL orange rek moo la ko mën a jox Sénégal un contrôle total loolu dëgg la yoon na monopole et pourtant réseau fixe boobu si ñàkku askanu Sénégal lañ ko tabaxee orange def na si pour moderniser ko mais à la base askan wi lañ jël seen alal tabaxee ko réseau fixe boobu léegi orange moo koy utiliser di noot askan wi ARTP xam na ko ARTP mënoon na si liggéey. moom la ñuy wax pour casser le monopole. voilà moom la ñuy wax dégroupage la boucle locale mooy fexe ba Expresso Tigo mën a jot ci réseau filaire bi pour ñoom aussi di mën a jaay internet mobile euh, internet fixe téléphone fixe loolu dëgg la yoon la ARTP xam na ko lu tax liggéeyuñ ci boo waxee ñu ne on est on est on est dans des projets ñu ngi si projet ñoom tout le temps ils sont dans des projets donc li li li war a jubbanti secteur bi lépp ARTP xam na wax ji kay mooy lu tax duñu ko def. le courage de prendre des décisions. lu tax ARTP du taxawu askan wi loolu mooy wax ci. Hmm. lu tax du ñu liggéey pour askan wi wax jëpp loolu la. ah ñoo fi mënoon ñëw toog de waxal seen bopp parce que. li may <laughs> xaar ma wax la ko nag. Hmm. lu tax ARTP du liggéeyal askan wi. lu tax du liggéeyal askan wi. l'ARTP est capturée par le pouvoir politique bàyyil ma expliquer lu ma lay wax ARTP ñaari organe la am conseil de régulation. le conseil de surveillance. oui conseil de régulation. Mhm. ak direction général dans tous les actes communautaires yu jóge CEDEAO yu jóge UEMOA dañ si wax ne nguur yëpp dañ war a fexe ba autorité de régulation bi am une indépendance totale vis-à-vis des pouvoirs politiques ak des opérateurs donc dans les textes réglementaires dañu war a créer les conditions de cette indépendance là et le législateur sénégalais en votant la loi de 2011 a tenté de donner une indépendance organique et fonctionnelle à l'ARTP les membres du conseil de régulation ñoom bu leen di nommer dañuy def appel à candidature te pour nga nekk membre du conseil de régulation il faut avoir une expertise avérée sur le plan technique judiciaire économique dans le domaine d'éthique. C'est la qualité numéro un, une expertise avérée dans ce domaine. Troisièmement, bu leen xasee ba nommé ils sont irrévocables. Mm-hmm. kenn mënatu leen fa jëlee pour pour durer mandat bi kenn mënatu leen fa jëlee. ARTP conseil de régulation kat moo ko jiite. on n'a pas besoin de citer de nom <laughs> mais. on sait non du ma citer tur du ma citer tur. pour walla la rek ne bi ñuy nommé les membres du conseil de quartier teguñ ko si yoon parce que ku jiite kooku ban expertise la am dans le domaine d'éthique pour waxuma sax ne être président du conseil mais être membre du conseil de régulation aucune aucune pour dire que quel que soit un système un système ne vaut que par ceux qui l'animent donc c'est des politiques qui sont au conseil de surveillance de l'ARTP waaw léegi direction général ba kooku moom la loi de 2011 moo ko fragiliser moo ko joxul doole parce que moom pour nommer ko euh, président mun na nommer ko ko neex. waaw amul appel à candidature te mun na ko dàq aussi heure bu ko neexee loolu moo gis en trois ans la RTP a connu trois directeurs généraux une instabilité totale ñetti at ñetti directeurs généraux yaayu d' abord monsieur. Sall. Mhm. monsieur Thiam et encore monsieur Sall ñetti directeurs généraux. instabilité totale pour un une institution aussi importante ñu ñoom ne fu ñu bokk benn parti bi parti bi nekk au pouvoir. Mhm. même yoon bu la nee mën nga def lu la neex bu fekkee yow da dikk si kanamu askan wi daal ne man bon bonne gouvernance laay woote transparence laay woote. même bu la ko yoon imposé wul nga ne boog xaaral ma xool si askan wi kan moo gën a xel màcc si lii ñu teg ko fa mais loolu yëpp amu fi donc ki nekk direction générale ARTP kan lay déglu du déglu askan wi kakonomi lay déglu. parce que mun na xëy suba dàq ko. ñu ñëw ci benn donc loolu moo tax ba. ARTP nasax ah, nasax ba directeur bu ñëw indi say nit indi say waay changer directeur fii changer directeur fële pourtant c'est des cadres compétents qui sont là-bas. Mmh. des Sénégalais patriotes mais le système est tel que ils ne peuvent pas mettre leur expertise au service du Sénégal donc c'est c'est une institution capturée par les politiques. alors démb amoon na fi te tey dara changé wu. dara changé wu dara changé wu alors sur dafa am aspect boo xam ne ça intéresse beaucoup. ceux qui sont férus d'internautes booy yi nga xam dañuy liggéey ci cité yooyu ba chaque jour nga dégg ay ay journée boycott affaire sur la qualité du service de l'internet. waaw c'est que yooyu sax si ay sénégalais la yuy ne un combat patriotique di utiliser jumtukaay yi nga xam ne moom mooy xaral yu bees yi jox moo ñoom dañuy regrouper wu sur Facebook dañuy gisante sur Facebook. Mm-hmm, les réseaux sociaux. voilà di ko utiliser un mouvement de sensibilisation un mouvement. def benn benn club. Mhm. entre ñoom regroupé wu. appelé di joxante mot d'ordre entre ñoom. boo xam ne membres yëpp dañ koy respecté. Mhm. et c' est une initiative citoyenne à encourager parce que les Sénégalais se retrouvent pour défendre une cause sociale et qui est juste. qui parce que man am na benn euh, kenn ku ma ne ma am na ko ko wax ci euh, micro trottoir bi nee na man lu ko jaaxal mooy lu tax ngay jënd carte par exemple ñu ne la boo consommé wul crédit bi ba heure bi perte nga crédit boobu. ba mu mel ni denrée périssable la. très bien loolu man ba léegi mënu ma ko comprendre. waaw. loolu mais est-ce que loolu c'est normal est-ce que loolu euh, c'est un élément c'est un élément du système que les opérateurs ont mis en place pour maximiser leurs gains et minimiser leurs revenus dama ne bu ñuy def denrée périssable ou un produit périssable c'est pour protéger le consommateur. Mm-hmm. bu ñu nee médicament bi ba telle date nga ko mën a consommer c'est pour te protéger pour ta santé produit alimentaire pareil. Mmh. pourquoi les les opérateurs utilisent ça pour une logique commerciale gagner le maximum d'argent c'est le seul secteur de l'économie sénégalaise on force les consommateurs à consommer tu es de consommer si tu consommes pas tu perds ton argent nga foog ne Sénégal yi nañ nangu Sénélec xëy wax leen ne crédit bi ma la jaay consommé ko en cinq jours en un mois ba consommé wul da nga koy ñu yor woyofal foofu laa jëmee ñu yor woyofal loolu nga fa ne Sénégal dinañ ko nangu dinañ ko dégg lu tax nag ñii di def loolu depuis ay ati at di noot askan wi te kenn du leen si wax dara ARTP foo waxee rek ñu ne oui les prix les prix de détail nous échappent on doit s'occuper que euh, li ñuy wax teguñu ko fenn mais non loolu loolu sénégalais non je pense que le maximum des sénégalais dañuy jënd carte rechargeable du ko def seen téléphone du ñëpp am ligne absolument ah, ñëpp loolay dëgg. du ñëpp am ligne parce que boo ko defee loolu ma mënu ma ko comp. jusqu'à présent mais du dëgg du yoon. ñu expliquer ma lu tax ñu ne boo. consommé logique commerciale la rek c'est juste une logique commerciale mais heureusement. Tigo ak Expresso bàyyi nañ ko. ok orange rek a fi dese. mais ñoo fépp doole Tigo ak Expresso ñu si crédit illimité orange rek moo si nekk si loolu ba tey. moo nekk si loolu ba tey logique commerciale dong nag moo ko indi. mooy njuuj njaaj yeeg tromperie yeeg nax askan wi pour lekk seen xaalis te yooyu yëpp ARTP mënoon na ko saafara. kon daal ñun suñu problème ARTP la. mooy suñu autorité yi voilà mooy suñu problème. ah woo naa leen ah ñoom woo naa leen fi pour ñu ñëwoon toog fii. dama ne wax ak euh, sénégalais. boo jëlee l' du Maroc boo jëlee l' exemple du Maroc. chaque année les tarifs diminuent. cent. loolu moo tax Maroc nee naa la mille francs CFA. tu as appel illimité valable tous les réseaux pendant un mois 3 gigaoctets euh, d'internet SMS illimité parce que l'opérateur tape sur la table ne li ngeen bëgg def du fi am Tunisie nee naa 7000 francs tu as 10 heures d'appel 10 heures Congo gi rek bi mujj opérateur bi. ñoom boo leen waxee ñu ne le Sénégal a a le meilleur réseau meilleure qualité de réseau. xam nga lu am solo askan wi gisu si boppam. Sénégalais yi gis seen bopp ci moom laa la wax. Mhm. développement boo xam ne nag askan wi gis su boppam amu njëriñ actuellement on nous dit des milliards dans le secteur des télécoms et les Sénégalais n'en profitent pas ça veut dire quoi on produit de la richesse mais on en profite pour d'autres c'est-à-dire que moomuñ suñu bopp pour les actionnaires qui sont au niveau de. <laughs> ay gros bonnets la. la wax mooy moomuñ suñu bopp. mooy moomuñ suñu bopp dans tous les pays où le secteur des télécoms est développé téléphoner est une banalité. téléphone prendre ton téléphone appel est une Sénégal li ñu nekkee gratter foo leen fekk ñuy gratter. mais ñun mais ñaata ñun en réalité ñaata opérateur la ñu ñet ñett. waa Kirène foo koy dugal. Kirène c' est un distributeur de gros en fait loolu maquillage lañ def pour ne pas payer de licence. mais distributeur ga mais Kirène mi ngi fonctionner comme un opérateur virtuel moo tax ñun dañu war a waat xoolaat suñu secteur télécom bi xool parce que man gëstu naa ba xam ki moom Kirène non disons que ñoom si d'un point de vue juridique il le présente comme un distributeur de gros waaw mais avec son propre merchandising waaw mais il le il le présente comme ça loolu est-ce que c'est possible juridiquement oui ils le font juridiquement oui mais c'est un maquillage qu'ils font yooyu mooy li ma wax suñu autorités yi ñoo ko nangu parce que Kirène fonctionne comme un opérateur virtuel moo tax ma ne dañu war a xoolaat notre secteur war ko réformer xool ndax dañu war a dem indi ñaari façon opérateur si dëkk bi. am na opérateur bu ñuy tudd tamit côté Matam yooyu mu yem. foofu waaw opérateur service universel la. am oh, nu mu Ayo Ayo. am na dañu war a xoolaat ndax ñun dañu war a dem si. aywa dégg naa moom dañ koy bund xatal carrément. parce que dafa dépendre si ñeneen ñi loolu moo tax ñu koy bund xatal. ok xam nga le code des télécoms. dafa consacrer la mutualisation et le partage des infrastructures mooy que réseau orange bi keneen war na ko mën a utiliser. Mhm. loolu nag ARTP moo ko waroon liggéey ba yeneen opérateur war fi ñëw Sénégal di utiliser réseau orange bi. xaaral ma jox la un exemple en France fri Mmh. un opérateur qui a cassé les tarifs des marchés de télécom en France. Mhm. qui l'a complètement cassé. ci wolof. Euh, Free benn opérateur bu nekk France boo xam ne amul réseau propre am réseau benn concurrent am lay utiliser mu ñëw casser les tarifs en France avant Free di ñëw ba fa buy nekkee SFR ak Orange mënoo foon am forfait téléphone à moins de cinquante euros. maintenant à moins de 10 euros moins de 7 euros mun na am mm. te loolu ki ko def mooy opérateur boo xam ne amul réseau réseau ñeneen ñi lay utiliser pour jaay moom la ñuy wax opérateur virtuel yi. mooy Kirène quoi comme genre Kirène. oui <laughs> mais comme Kirène juridiquement ils ont fait en sorte que dañ naan c'est un distributeur en gros. Uh-huh. donc mais war nañ créer condition pour que opérateur virtuel yooyu war a fi ñëw moo tax dañu war a xoolaat secteur bi xool ndax ñun. ma ma ma jël ci après pour mun ko parce oui allo. allo. <laughs> oui allo. waaw ñu ngi lay déglu sëñ bi na nga def. maa ngi fi jàmm rek. alhamdulilah. waaw ñu ngi lay déglu. dégg ma ne dama doon laajte ñaari question rek. ay ca. waaw ñu ngi déglu say question non parce que may déglu émission bi dama ko jël en cours de route. waaw léegi da ngay bàyyi télé bi nga jël sa téléphone bi nga déglu ci parce que sinon da ngay am décalage loolu tax ma ne ñu ngi déglu say question ah oui d'accord voilà. donc dama ne émission bi en cours de route laa ko jël. très bien léegi lan mooy say question ñaari question nag lay laajte yoo xam ne nii ça m'a trotté la tête boobu ak léegi. ayca. te gis naa ne kii wax nii xam na li muy wax tuuti daal. waaw ayca ayca ñëwal ci question yi parce que ñu ngi ci jeexitalu émission bi. waaw gouvernement Ablaye Wade dafi defoon taxe ci. sur les appels à waaw. léegi bi Macky ñëwee dañ dindi nañ ko. Mhm. mais man su ma gis-gisu bopp xëy na damaa juum tamit même même même tarif yi moom mooy appliqué ba léegi. léegi laaj bi lan la. te léegi bi nga xamee ne wadd waaw bi. waaw ligne bi tarif yi dinañ appel entrant yi est-ce que dañ ko. waaw si si si si si orange defe naa loolu la loolu ku njëkk defal moom. dindi tarif sur les appels entrants. mais pourtant ñu bari nag nee nañ ma war nañ ko mën a xoolaat. non li gën a graaw. mooy lan mooy que bi ñu dindee par décret appel entrant yi la taxe. waaw opérateur dañu continuer di ko percevoir de 2013 à 2015. nga ne. ba pare dañ continuer di percevoir taxe boobu. te ARTP xamoon na ko. ARTP xamoon na ko. parce que lors d'un séminaire à Salé avec les les associations de consommateurs attiré son attention sur que opérateur yi ñu ngi continuer di percevoir taxe boobu tarif yi baissé wul te ARTP defu si dara. maanaam kon ba état bi dindee taxe bi. opérateur yi immédiatement euh, tarif dafa waroon baissé. voilà mais baissé wul. mu nga opérateur yi continuer 2013 ba 2000. il a fallu seen benn naataango wax ko. pour que finalement directeur ARTP dem foofu wax ne effectivement euh, affaire yi di dégg di dégguñ ko ñoom donc njuuj njaaj yi nekk si biir secteur bi dafa bari dafa euh, bari te dinaa leen euh, loolu yëpp nag uh-huh. ki ñu fi teg pour mu jàppale askan wi kat moo moo dul jàppale askan wi ARTP mosul wax naa nañ def proposition pour que sénégal yi gis seen bopp si développement des télécoms mos nga ko dégg mosta am benn yoon la ARTP wax affaire yi baisse de tarif de communication mooy si portabilité et ça a été la catastrophe. portabilité bi ça pose ça pose problème moom aussi. ah non ça ça c' est le projet que la RTP essaie de nous présenter comme un projet phare mais seen tabax bi ñu def dafa des lu bëri dafa des lu bëri moo tax sénégalais yi heureusement ba utiliser wuñ service boobu portabilité mooy lan mooy boo kontaanul si biir opérateur. nga dem si beneen opérateur. ba pare conserver sa numéro. da ngay yóbbaale sa numéro. Mm-hmm. loolu ban conséquence la mën a am moo di li taxoon nga mën a xam kii si ban réseau la nekk amatul njëriñ yow xam nga 77 ban réseau la 76 ak 70 mais comme portabilité da lay permettre nga jóge fenn dem feneen yóbbaale sa numéro dara du si changé ki ngay woo xamatoo ban réseau la nekk. Mm-hmm. nit ñi jaxasoowuñu donc yow boo jëndoon un forfait pour woote si benn réseau da koy ñàkk parce que ngay woo xamoo fan la nekk. ça c'est c'est des problèmes c'est dommage hein que. loolu pour faj ko. Mhm. li ARTP waroon def. mooy fexe ba chaque opérateur am ce qu'on appelle signal de transparence mooy que booy wootee bip bi ngay dégg wax la kii ban réseau la. Mhm. bañ ko ñaxtoo en septembre ARTP woo nañu pour ñu waxtaan. ñu wax ñu ne fin octobre au plus tard opérateur bu nekk dina am signal de transparence ñu ngi si ban weer. ñu ngi ñu ngi ñu ngi ci février. ma ngoog bokk. <laughs> donc maa ngi lay sant doy na waar seen seen lay sant di la gërëm bu baax a baax. parce que c' est difficile quand même seen débat parce que xam sama gars ñi moom dañoo doole quoi. waaw waaw beaucoup de. mais nag askan wi bu taxawee askan wi kenn ëpp ko doole. waaw te loolu am solo. waaw dong nag loolu rek moo am solo. waaw te maa lay tëjee fenn rek. Mm. mu ne aucun pays ne s'est développé sans un leadership très fort mm-hmm. dëkk boo gis rek ña ko développé dañu mbubboo patriotisme ak nationalisme c'est important exemple bi mujjee bi ma lay jox mooy Malaisie mm président Mohamed un dentiste bi def Malaysia 2020 ba tax moo indi développement Malaisie ba mu egsee sa nguur ga discours lu mu wax benn famille laa am mooy Malaisie benn xarit laa am mooy Malaisie ba muy quitté pouvoir ba mu ne leen bi may ñëw maa ëppoon ay mbokk si dëkk bi maa fi ëppoon ay xarit maa ngi dem amatuma mbokk amatuma parce que askan wi rek laa jiital si li ma doon def ñun loolu lañ soxla waaw nañ jiital askan wi si lépp lu ñu war a mën a def di wax ne y' a beaucoup de réactions yoo xam ne jël nañ ko tamit ci Facebook bi ci page décryptage ah di wax euh, ci wàllu décor bi mais bon euh, bon lii la am donc comme moo fi nekk c'est <laughs> téléspectateurs yi naqarlu ko bu baax a baax mais tamit bon li may wax ne li ci am solo mais bu ñu fi toogee rek nañu wax loo xam ne suñu gémmi dina jariñ askan bi loolu moo ci am solo donc euh, retenir loolu c'est le plus important euh, le reste bon ça ne dépend pas de nous véritablement parce que daan nañ ko def ci yeneen euh, anam yoo xam ne moo doon gën a neex téléspectateurs yi donc euh, tey jii li ñu doon waxtaanee tamit ñi ñu fi dalal bëggoon nañu ñëw toog fii ci plateau bi wax seen xalaat li may wax ne bu ñu waxtaanee ci dal mhm. lépp ci dal laay bëgg man mhm. émission ñu koy def parce lu ñu ci jublu jubluñ ci ŋàññi kenn wala dal kenn mais waxante ay dëgg pour askanu Sénégal gis seen bopp mhm. parce que mënuñu toog di lim ay milliards yu bari ma gouvernement bi soxla na ay milliards ndax ñu ngi koy lebi te war ko mën a am ci beneen anam te bu lebul ñenn ñi di jël milliards yi te li ci ëpp day génn senegal dem feneen dem ci yeneen. ci ci ci dem France. Mhm. kon nañu fexe ba milliards yooyu tamit mun mënul jël lépp it ñu am lu bare bare bare bari luñ ci jël ngir suqale ndax éducation baa ngi am problème. Mhm. santé baa ngi am problème. projet yaa ngi fi taxaw PUDC ngi taxaw PSC ngi taxaw kon gouvernement bi war na jël ay matuwaay xool tamit secteur boobu ñuy wax ne secteur télécommunication yu ndër rëcc yëpp ñu téyewaat ko jël koppar yi dugal ko fii ci réew mi bàyyi ko fi. kon di leen sant di leen gërëm di leen dig daje àllarba bi di ñëw ci beneen émission décryptage